bismillah auusu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh sadri wa yassir li amri waxlul xoqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Cheikh Ahmadou Bamba di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiin di jaajëfal mbokki talib yëpp ne san di baalu xaq ñëpp tey baal xaq ñëpp di ñaan sa borom boole ñu jéggal san di am mbégte lool moo yaatu lool ci bis bu tedd bu màgg bi nga xamante ne bikki nii moom lañ amal génn ko muy bisub màggal di mbégte mu rëy moo xam ne mbokki taalibe yi ndeysaan def nañ ko ci definu wu rafet boo xam ne ndeysaan léeg-léeg dangay wax rek alhamdulilahi ala kulli al dinañ waxee alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ginnaaw bi ñu baaloo ak ñëpp di baal ak ñëpp di ñaan yàlla nu sama borom boole jégal di jégalu bu baax nag ci alxamis bi ñu génn nga xam ne suñu borom dafa dogal ñu am gànt ba ñoo ñëwoon indi bind bi comme niñ ko daan defee rek ci waxtu yot jot ci waxtu wi incha allahu taala sa borom nag dogal kenn ku ci nekk xam na ni tawat yi nga xam ne ni sa borom da ko wasaare ci àdduna bi yépp tax gàllankoor yu bari ak yitte yu bari gàllankooru ba tax na fii ci Argentine sa borom dogal nañ ko daan màggalee muy dajale ci benn barab di fay jàng alxuraan ak xasida ak di fa màggal màggalu bisub sëriñ bi di ko santale boromam comme ni mu ko diglee ren mu mel ni ameewut noonu waaye dama mel ni dafa dafa dafa dafa fawxa dafa am dafa am amin woo xam ni ndeysaan sëñ bi mbirum sëñ Tuubaa yi nga xam ne amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ndax magal gi ni mu jéggi ma ni mu kiimaane ni ñu ko màggale ci ak dal kenn ko ci nekk ca barab ba nga nekk ni nga jàngee alxuraan ni nga jàngee xasida ni nga teewloo bis bi ci mbokki taalibe yi war ci barab yi wallaahil karim dafa fawxa dafa dafa dafa dafa am solo dafa am solo am solo goo xam ne foo ko takkee na ko di ñaan rek lépp luñ ci ñaan yàlla ñu ko sama borom nangul te fulal ni ko ci barke Cheikhul Xadim te sama borom jële fi mbas mi te toftal ci ay xéewal yu yaatu yu ànd ak barke tabb nga yëpp kattan ba sama borom dagal ñu am doole poos ak doole saayir su ko ba kenn ku ci nekk ñu magal ko ni ñu bëgg a magalee insha allahu taala dafa am mbokk yu xam ne nag tey insha allahu taala dinañ ñeen ñëw yéen ci nekkuk sëriñ bi ca Jolof comme ni ko mag mbokk yu bari desaan dañu ko ndeysaan di xëlee dañu ko wax ne nañ ko indi insha allahu taala tey dinañ ci ñëw bu sooy suñ ci waa jolof sëriñ bi am na fa juróomi at moom barab la bu wéet moom jolof barab bu wéet la boo xam ni fu ñàkk am ndox la ndax tubaab yi ci seeni pexe ginnaaw ñoom seen yite yëpp moo nekkoon moom lor sëriñ bi rek moo tax fépp foo xam ne jàpp nañ bu ñu fa demee sëriñ fu mën am jàmm ji sa yare ñoom foofu lañ koy yóbbu moo tax dañ doon xoolee ak barab yu périgorose barab yu barab yu wóor di yoo xam ni bu fekkente ni yu amee rab la jàppal mi ko fi wala rab yi jëfandikoo la bu fekkee jumtuwaay yi xeetee ndox ak yami soxla yoo xam ne amu fa bu ñu ko gëstu ba xam ko dañu fi mën man koo gàllankoor ci ay yite sa yaram mais nag ginnaaw sa borom dafa dogal sëriñ mu ànd ak borom moom moo tax daanaka du wér ci dara te it képp ku jubóog sa borom it yaakaar naa lu bëggum yomb la moo sëriñ bi am na fa juróomi at muy fu ñàkk am ndox waaye teewul nit ñi di ko fekk nag moo tax may faral wax ni pas-pas yàlla nañu sa borom defal pas-pas bu wér bu dëggu wóor ndax pas-pas maanaam nit ki lu am rek amee ne yitte la mais am loo xam ne nag dañoo bokk na te xaw a wutee dinaa ko leral yitte nit ki bëgg dara ak ci yitteem jëpp maanaam ci misaal tey nga bëgg liggéey amoo liggéey di wut liggéey saa boo xëy sa sa daal loolu mooy def ci yitte ba ngay am liggéey loolu mooy yitte pas-pas nag mooy li nekk ci biir xol nga xam ko ni gis nga ni sëriñ bi sa àdduna ak sa àllaaxira mi ngi ci loxoom te boo ko toppee ëllëg nga cay jariñu mooy topp mbir mooy ni ko suñu jubaay di waxee ci nax joxe dara xaaja bi ñuy faral di joxe rek mooy topp ci bind bi ne wa man xadaal baaba wala jawala ji mbir moom saa boo ci fëggee noor ci rek xala kulli alfaw bi la ko loolu mooy pas-pas man ngi dañoo amoon pas-pas ci sëriñ bi xam fi mu leen jëlee xam fi mu leen yóbbu moo tax fa sëriñ mas nekk fa fekk nañ ko fa moo bi nga xam ne indi nañ ko jolof muy barab bu wéet ba pare ñàkkum ndox waaye téewalu ñoom bëgguñu ndox xooluñu naaj gu tàng xool ci ko ñoom sëriñ bi rek ba dafa sëriñ mas nekk rek xale ku leen mag ñi fekk nañu fa yàlla ñu yàlla fay suñu mag ñu baax ñooñu ndeysaan sa borom dogal ñu ko fay fekkee nag nu raw nañ ko daan fekk gannaar sëriñ bi mu agsee dafa def lu ñaari kër genn gi mu tudde ko daaru arrahman ka ca des mu tudde ko daaru xudóos am na ku nettali ne am na benn bis mu julli fajar daaru rahman moom sëriñ bi ba noppi wax mag ñi mooy ñi nga xam ne ñoo jàng kaamilu suba gi comme nañ ko faral defee rek njaareem ak Touba. muy daara yi nga xam ne sëriñ bi moo ko fasal boppam muy daara kaamil yu ñu jaarem ba ci bu tubaabee nag bis bu yàlla sax ñu fa jàng juróomi kaamil mais bii nag sëriñ bi dafa julli fajar ba noppee Daaru Rahmaan ñëw Daaru Xuddoos wax ñi jàng kaamil soo bi ne leen bu ngeen noppee ngeen fekk ma Daaru ñëwee mu ni nañ tëj bunt bi sëñ bi ne bi ma ngi ñëwee sëñ bi ne nañ tëj buntu kër bi te ku duggoon bu mu génnaat ku duggutoon bu mu dugg wax leen ñu jàng ab lim ci kaamil mu indi warga moom sëriñ bi ak suukar ne leen togg leen ko te ku ne buy naan ab kaasam na ci yéene ab dënnam nekk dala waayu alxuraan déglu lay wax kenn ku ci nekk ne naan naan ab kaasam tax ba naan ci yéene ab dënnam nekk dalukaayu alxuraan biñ toggee ba naan di sànn ba noppi daal di gis waaju taxaw ci ginnaaw sàkket yi booba ay sàkket lañ ko woon ci maanaam moom barab bi bi nga xam ne nag ma ngi xew lañ man attaay bu noppee rek ci bi rek ñu gis kenn ko fa lu mel ni ay ndomba ñàkk solo loolu ci saayir nuyoo maam nuyoo nuyoo ko xamul dara maam nuyoo bu gàtt daal nuyoo ko xamul dara am ku jug di mu dawarante ak moom mu daarante mooy maslaa am kenn ci mag ñi ko wax dafa jóg di mu daarante ak moom ngir bëgg mu dellu dellu bu rafet kookee taxaw ne ko ëwma ci yow soxla gis sëriñ bi mooy sama soxla ne surtout sëriñ bi dégg coow li laajte li ñuy wax lu mu wala boog li ñuy wax lu ko waral ñu ne ko daa am ko taxaw ci ginnaaw sàkket wi sëriñ bi ne bàyyi leen ko sëriñ bi ne nañ ko bàyyi te sori maanaam bàyyi leen ko da jox sax far ndigal da leen bàyyi leen ko te sori maanaam leen ànd ko daal di ne ko jàkk maanaam sëriñ bi ci moom daal di xool waajoo yi ne ko jàkk ab diir maanaam jàkk mel ni ko bañ a xef daal di ne ko jàkk ab diir lu yàgg sax duggaat ci biir ne leen fexe leen mu dem ba sori te bu ko kenn laal maanaam fexe leen mu dem te bu ko kenn laal ñu def ko noonu ko sëriñ bi waxee ba ñëwaatee mu ñu leen ndax xam ngeen kooku sëriñ bi laaj leen ne leen ndax xam ngeen kooku kooku kan la ñu ne ko déedéet mbàkke mu ñu leen mooy iblis noonu yàlla bi allahu akbar sëriñ bi ne leen kooku mooy noonu kooku mooy iblis noonu yàlla bi ne leen tey jii lu rëy ko taxoon a jóg moo tax mu ñëwal boppam bu fekkoon keneen ku dul man ci kaw suuf dana yàq-yàq gu rëy allahu akbar si leen bu fekkoon keneen ku dul man ci kaw suuf dana yàq-yàq gu rëy rëy rëy yal nañu sëñ bi doole dimbali doole ñoo taxawu moo leen ne leen sant yàlla sant leen yàlla bu baax a baax a baax te gërëm ko nettali bii nag mi ngi ci diiwaanul aju diiwaanul aj wil batil washaaya ci xëtu 492 ba demee li ma la wax di nga ko fa fekk ci weeru koor nag atum ci gàddaay gi ci la suñu sang bu baax boobu ndeysaan sëriñ Abdullahi doomi sëriñ bi nga ne àdduna sëriñ bi moo bind Abdullahi ci kayit yónnee ko sëriñ Moxtaar Bintaloo nijaay sëriñ Mahamadul Mustafa ne ko mu tuddee ko noonu boobu sëriñ bi mi ngi jolof loolu sëriñ Mahamadul Amin Diop Dagana moo ko wax ci Irwa un Nadim xëtu 341 ci tubaab bi ñu xoolee bi ñu xoolee nag barab bi mel ni sëriñ bi lim daan bëgg fi la koy fekk gën a mat tayit sori na leen ñoom ñi nga xam ni ñooy mag ñi nga xam daal fi ñoo di ko fekk si yaa ñu xam ne sëriñ bi sori na mbokk yëpp ba duñ mën a xam ci moom dara lu tax ñu mën koo mën a pexeel ñun tubaab yi ci lañ commencé nag wut nag ñoom yeneen pexe ndeysaan Jurbel nag Jurbel mooy sama dëkk bu baax boobee ndeysaan albuqaatul mubaaraka ci atum 1330 ci gàddaay gi tolloog fukki fan ak ñett ci déggu tabaski di atum 1912 ci tubaab tolloog fukki fan ak juróom benn ci loolu sëriñ ci saafi yi ci li Abdourahman la wax ci ashikriya al mihwiya booba lay wax naan raamul masiri ilal jurbel la daal asasin law aayonoo charra ma fi cheyri ma raamo fa cheyru mawtun alaaman naasoo xoo wa asan wa innahu li ibqa un wa ikraamun ñenn ci 1330 lañ ma jëmee jurbel waaye dañoo xamul rek waaye dañoo xamul rek ndeysaan buñ xamoon duñ ma fa yóbbu ndax dem gi ak dellu ci ñoom ak dee la ci ñoom ak lor man nag ak teral la ci man ak xéewal ak des ba faw foofee cay Cheikhul Xadim loolu mu nekk loo xamante ne bi ni mbokk yi lu ama am am solo la xam naa damay ñëw yéen incha allahu taala ci jëmmi màggal maanaam damay ñëw ak yéen ci màggal maanaam lan moo sabab màggal maanaam màggal sëriñ bi ci boppam moo joxe ndigalul màggal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul yaakaar jàmm yi sëriñ moo joxe ndigalul màggal li may wax ni sëriñ Mahamadul Mahmoud Ñang nee na ci atum 1927 ci tubaab la sëriñ bi digal taalibe yi ñuy màggal. bisu fukki fan ak juróom-ñett ci diggu gàmmu di 18 safar sëriñ Abdourahman Lo nee na ci téereem boobu ne sëriñ bi daa wóolu sëriñ Balla Faali Ñang sëriñ Balla Faali Ñang ci yoor yoorub bisub fukki fan ak juróom-ñett ci diggu gàmmu atum 1339 ci gàddaay gi tolloog atum 1921 ci tubaab booba am na ay mag ñu fa nekk am na ñu fa nekk sëriñ bi jox ko juróom benn téeméer yi dërëm sëriñ bi yëkkate juróom benn téeméer dërëm jox ko ne ko ci café ak suukar yëkkatiwaat juróom benn téeméer dërëm ne ko jënd ci ndawal ak yu ni demee muy junni yaakaar naa ak ñaar téeméer su ma juumul daal di wax sëriñ Balla Fally ak ña fa teewoon ñépp ne leen dangeen doon sàkku ab bis bu ñuy màggal ci man ginnaaw bi ma jógee ci géej gi te loolu jàppandiwul woon tey nag bis baa ngoog tey nag bis baa ngoog yi ci bis boobu yi laa tàmbali liggéeyal yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallama ki la ma nasaraan yi génn Mbàkke Bari ñëw ma ci réew yu yi nga xam ne kon fi mu ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yaakaar ji moom mooy ki njëkk a jël àllam def ko ci màggalam gi maanaam sëriñ bi moom moo njëkk a liggéeyal boppam moom ci bisam bi kon mbokk yi fi mu ne képp koo xamante kër yi jot ko ci màggal gi rek. na la wóor ni maanaam sëriñ beer tàmbali kon dañu wax alhamdulilahi rabbil alamin dañuy waxee alhamdulilahi ala kulli àll ndax magal murid ji sama dafa na leen ci tawféex goo xam ne amuñ ci sago te nag muy liggéeyal yàlla ak yonte bi alayhi salaatu wasalaam ndax sa Ahmadu Bamba tam bi nga xam ne moom la ko sama borom jox ci bisam boobu la ilaha ci nga bokk kon dafa mat a santal yàlla sëriñ bi di wax rek alhamdulilah ala kulli àll ndax it dëgg yàlla magal gi xamewoo ci murit xamewoo ci tijaan xamewoo ci xadir xamewoo ci layen rawatina ci barab bi ñu nekk wallahi al karim loolu mooy baatu ashhadu an laa ilaha illallah boo ko waxee ci say làmmiñ ba noppi da nga koy pratiquer ci say cër nekk bi dafa am solo ci ni nga xam ne noonu la ñuy maanaam dund ci suñu biir ci bis bi nga xam ne mooy bisu lëg mag ñu baax yi bu ñëwee ni ñu koy àndee Seexul Xadim nag sàmbaram dafa dogal ba muy exceptionnel suñu ci waa kenn du moom sàmbaram da ko fay ci mboolem wéetal gu mos a wéetal sàmbaram bis bii mu woo sëriñ Balla Fally Niang jox ko ci ndigal maanaam mag ñi aggoon nañ ci di waxtaan bisub sëriñ Balla Fally Niang bi géej moom sëriñ Balla sëriñ Balla Fally Niang moom fonk gu fonkoon bis bi moom ndax ni ko sama borom ni ko sëriñ bi digle woon mu am ci pëstef boo xamante ne bi nii rek foo ko takk weesu na ko ndeysaan mu nekk loo xamante ne bi nii dafa am solo ba foo ko takk weesu na ko di ñaan yàlla noonu sama borom defal féex yoo xamante ni màggal gu ñëw rek yàlla na gën a fawxa di ñu weesu te yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal di jaajëfal bu baax mboole mbokk yi xakkee ni ñu ngi woon ci kër yi di waxtaane sëriñ bi di ci berndeel ndeysaan di gis tamit fes boo xam ne ni ñu ngi koy salee yaakaar naa su ma jumul Mendoza ay mbokki talibe yoo xamante ne bi nii ñi ngi togg ay xéewal ndeysaan tubaab yi di ñëw def ak fiilaa la rang ñu koy yëkkati di ko joxe dara gënta màgg ci àdduna joxe aw ñam rawatina ci bis suñu tubaab yi maanaam bis bi bernde la bis bi lépp benn la maanaam fi mu maanaam boo ciy xéwlu sax maanaam fas gi barke Cheikhul Khadim booy tiimee sax ndab di xéwlu fasal ci bis bi maanaam bisimillahi maa ngi fas yéene jaamoo yàlla régale ko sëriñ bi ab yool ngay jëlee ci xel googu ngay xam da nga ci am yàlla am ci sa biir te ala kulli àll ci nga ci teg moo tax nañ fonk magal gi sa murid yi nañ a góor-góor ci magal te fii réew toll ci xaalis buy daanu ci quarantaine nit ñi gënuñu liggéeyuñu ay benn benn ñooy génn sa dëkk bi kenn ku ci nekk xam ne ni muy doxee maanaam nga am pas-pas boo xam ne nii wallaahi la kenn ku ci nekk la nga denc na koo génne def ko ci bisu sëriñ bi waaye du ngeen ko rëccu ndax Sëñ Tuubaa ñëmul bor dafa amul pay tey da afistu ma sina adid dafatiri fala takun xaqimati bafatiri Sëñ Tuubaa dane wattu naa loo xam ne ëppante nag ay kaggu kon boo muy liggéey bul tayal kon nañ fas ñu liggéeyal Sëriñ Tuubaa bi te xam ne kenn ku ci nekk ci ëllëg insha allahu taala loo koy def dana maanaam dana kawe sa njort di ñaan sa borom mboolem lépp loo xam ne ñu ngi koy yaakaar ci dëkk bii rek yàlla bu sa borom des yaakaar ndax kenn ku ci nekk xam na ni méttiwaay bi foo ko tagas nag waaye nag am murit du jàmbat tey nag ku fekkee rek mooy jàmbat kenn ku ci nekk xam na ni bis la boo xamante ne bi ni wallahi karim malayka sax dañu koy feetam ndax bis boo xamante ne sa borom da koo gërëm maanaam ko xam ne yàlla ci boppam dafa dafa gërëm léppam kon képp ku sa borom baaxee rek nga fekk bis bii rek waxal alhamdulilahi rabbil alamin dañ ñaan ndeysaan su dee ñëwee yàlla na nu fekk ci situation yu gën yii mu ñu fekk te def ci suñuy post dara mu nekk loo xam ne lu ama am am solo la loo xam ne dafa mat a bàyyi xel di ñaan sa borom mi nga xamante ne bi nii nag moo am kattan te comme kattanal nga am kattan yàlla na jox kattan goo xamante ne bëkk nii maanaam bu déwee kenn ko ci nekk ni nga ko bëggee yow yaay yëkkati lu toll ak maanaam téeméeri junni peso maa la ñu topp def ko ci biir Sëriñ Tuubaa bi yàlla mën na ko mbokk yi yàlla lu ñu da joxe ñëw ak yéen insha allahu taala ci ndigalul am mag moom a xam ni ndax ne nañ ñëw tey ci ndigalul jumaa yi am na mbokk yoo xam ne ñu ngi ma doon laaj ne dañoo bëgg ma leen yordul maaxuus waaye xam naa insha du ñàkk bu fekkente ne bi ko nii xaj na fi dinaa ko indi bu fekkente ne bi ko tamit xaju fii beneen émission bii di ñëw it incha allahu taala ma indil leen ko bu soobee suñ Tuubaa wala sax xam naa incha allahu taala ma ñëw cee génn nii doog a dale ci suñu beneen bind bi ñu war a ñëw ak yéen incha allah muy naxju xada il haaji fii haaji sarix seexina adal haaji werdu maxuus boo waxee auzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa inni u'iizuka bika wa zurriyataha min seytaan rajim min seytaan rajim rabbi u'iizu a'uuzu bika rabbi an yaxduruun benn yoon déglu baax damay wax wax a'uuzu bi kalimatillahi ko bu fekkee da ngaa bëgg a werd werd maxuus waxee a'uuzu billahi min asheytaani rajim wa inni uhiisuha bika wa surriyataha min asheytaani rajim rabbi an yaxduruun benn yoon a'uuzu bi kalimatillahi attaamaati min sharri maa xalaqa ñetti yoon bismillahi rahmaani rahim benn yoon bismillahi lasi laa yaduru maa ismihi shay'un fil ardi wala fi samaa'i wa huwa samiul alim ñetti yoon bismillahi maa saa allahu laa yasriqul xayra ila allahu bismillahi maa saa allahu laa yasrifu su'a ila allahu bismillahi wa bikum min nihmatillahi min nihmatin fa min allahi bismillahi maa saa allahu laa quwwata illa billahi ñetti yoon bismillahi si ashahnil hasimi alburhan sadidi sultan maasa allahu maasa allahu kaana ausu billahi mina seytaani ñetti yoon daal di wax kursi yu ayatul kursi yu benn yoon allahu laa ilaha illa huwal xayul xayum laa taqusuhu sinatun wala namun lahu maa fi samawati wa maa fi l ard man sallasi yasahu hindahu ilaa bi si yalamu maa bayna aydihim wa maa xalfahum wala yuhituuna bi sayin min xilmihi illa bi ma saa wasaa kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu xifsuhuma waxul aliyul asim benn yoon laqad jaakum benn yoon laqad jaakum benn yoon wa ufawidu amriya ilallahi inna allaha basirun bil xibaada benn yoon xasbiyallahu laa ilaha illallah alayhi tawakkaltu wa rabbul asil asimi juróom-ñaar fukk astaxfirullah al asimi lasi laa juróom-ñaar fukk allahuma salli ala sayidina mahamad al fatih lima uxliqa wal xaatimi lima sabaxa nasir xaq bil xaq wa xaaj asraka mustaqim wa ala ali xaq qadri wa miqdaari asim téeméeri yoon laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu mulk wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadirun fukki yoon allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina mawlana muhammadin nabiyi lumiyi wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman wa barakatan taxabu lii taxabu biha saadatan la shaqawatan bahdaha waakaba ridan wa akbara ridan minka la suqta baxdahu abadan yaa karimu yaa jamilu yaa wadudu yaa rabbal alamin yaa badihu yaa wahaabu yaa wahaabu yaa latifu yaa karimu yaa naafiu yaa naafiu yaa akramu yaa rabbal alamin yaa ahadu yaa latifu yaa baaxi yaa latifu yaa akramu yaa daimun yaa xaaliqa dunya wal axirati wa maalika dunya wal axirati wa maa fihima wa bashiri lasina aamano wa amilu saalihaati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhaaru kullamaa rusixu minha min samaratin risqan xaalu haza lasi rusuqna min qablu wa utu bihi mutasaabihan wa lahum fiha aswaajun mutaharatun wa hum fiha xaaliduna subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alhamdulillahi rabbil alamin loolu mooy werd maaxuus mu nekk loo xamante ne bi ni dafa am nag ay charte mooy su fekkente ne koy def dangay faral di julli julli ak mbooloo dangay faral di julli julli ak mbooloo di ko def suba gi ak ginnaaw takkusaan ba ki xamante ne ñëw ak yéen kon insha allahu taala ci suñ bind boobu ñuy wax naxju xada ilaji fi asdi sarxi sayxina adalhaj yi moom mi nga xamante ne ni borom dafa dogal muy jàngale ay teggin moom tere boobu te kenn ku ci nekk xam na ni ay teggin sax ñuy jël di nit di teg fa kaw ay tegg na tax ñuy jël nit di ko teg ci kaw ñàkki tegg na tax ñu jël nit fa kaw di ko caw kon yaakaar naa ñu ñëw ak yéen insha allahu taala ci suñ bind bi nga xamante ne bi ki ni lañu war a jàng tey insha allahu taala bismillah ausu billahi min alseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyaka nahmadu wa iyaka nastain ihdina siraata almustaqima siraata alladina anamta alayhim xayri almaxdubi alayhim mu ne wa in xaawalta wa in xaawalta ndem xiyaaman jug minal majlisi ca jataay ba fa xum jugal amal la baaxatin ci ak ñaw ñaw mooy ci ak yow waxtal xiyaam ci waxtu jug wa ci jamono bi nga jóg rek wala takkun te nekk nag mën a sàmmi foofee saariya di aji suuf sa xale wujuhim ci seeni kanam li xul fii ak wuteem asaa njub ga rek suuf sa wayen xadarta ndem attan nga la takkun bul nekk saa naw min di boroomu nelaw bay na sawi yàqasatin ci diggante waroom ak yow fil xaw bi ci nit ñi fay naxu naka moom lay sa déet moom min adaa bi muy bokk ci ay tegin is ngir fii nekk na ci ay tegin maa la nga xam ni fii nekk na ci moom minal xitaa bi ci ak yeddaange yaan yi dana jublu ana minal adaa naka bokk na ci teggin ya alxasani ya di aji rafet an taxtasira ngay moytu min an tasiree ci ngay tasaare aturaaba suuf si ala wujuhil julaasi ci kanam ak way toog ñe isa arata ndéem bëgg nga alxiyaamu jug min majlisi tukkee ca jataay ba fay arata ndéem bëgg nga saalika loolee faxum jugal bi la baaxatin ci ak ñaw wala baaxatun ak ak ñaw kal xasaaxati mel nig ñaw was nan ci màndax wala nga ni ay tolluwaay rek wala nga ni tolluwaayu ay baat wa max nan ak maanaama wala mbir yi rek wala tàmbara tabu romb xale wujuhul julaasi ci kanami way tooñ ya min adabi bokk na ci ay teggin an laa tanaama ngay bañ néewal wala boog ngay bañ nelaw bay na la mu te yàq si na ci diggante way yow yi ini sa ini sa tax kem sa kattan wala nga ni ini sa tax ndeem nga ko fay na ko naka moom lay sa déet minal bi muy bokk ci ay teggin is ngir xat taxaruju amaana mu génn mel ko ci yow riixul ngelaw wala tasxoru te doo ko yëg bii ci moom li anal ayni ngir naka bët wikkaa du duburi mooy takkaayul suuf wala nga ne rek mooy takkaayul ginnaaw sëriñ bi dafa wax ni bokk na ci ay teggin boo jug ci ab jataay nga jóg te bañ a tasaare suuf sa waaye jekk-jekk rek jug ne bëreet nga xam ne dañoo bëri fitna ci seen dox nga xam ne bu ñu jóg dañuy jekk-jekk rek ne bëreet noonu ndeysaan man ngaa toog ci barab boo xam ne ay nit a ngi fa toog tàll seen tànk mbaa nga ay nit a ngi fa toog takkuñu ay nit comme mel ni yi ma takk nga jug rek boo jógee sa yére wala say dàll xëppale suuf si te su boobaa da leen di fàtt te loolu ndeysaan dafa bokk ci ju koy càmmeen wala bokk ju koy cekkeen wax ma rek na nga dox na nga jóg ak ñaw rek te bañ a tasaare suuf si loolu yaakaar naa ni suñ mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ca réew yi Sénégal yooyu ñoo kenn fi nekk moom suuf bariwu lool waaye nag dafa mel ni ginnaaw dëkkuñu fi moom kon dañuy jàngale rek kon loolu moom lu a bàyyi xel la mu ne kon booy jóg na nga jóg rek ci ak dal boobu nank rek dox nànk ndeysaan bañ a sànne kenn suuf si seen kanam ginnaaw bokk na ci itam ngay bañ a nelaw ci biir ñu nelawut bu tëdd ci ay nit ñoo xam ne ñi ngi xoolee nga nekk seen biir di nelaw ndax ngelaw mën naa génn ci yow te doo ko yëg wala sa awra feeñ te doo ko yëg ndax nekk ci ay nit ñoo xamante ne kenn ko ci nekk yaa ngi waxtaan yow nga tëdd ci seen biir ay nelaw dab la. wax dëgg yàlla kenn ku nekk xam na ne lay génne ki sa ginnaaw mën ko ko bañ a xam moo tax nekkul ay teggin mbaa rafetul boog ay nit ñoo xam ne ñu ngi toog di waxtaan nga ñëw ci seen biir di nelaw loolu leen na lu matamaytu la ndax amaana kon say awra feeñ nga tëdd say awra feeñ te doo ko yëg te su baa loolu moom kersa ak yaraanga rek lay yur ginnaaw boo ko xamee waxalam na nga xam bi andoona xesa ci naka xër li taami ñeel ñam wa min mujubaatil xaari bokk na ci way waral ngaññi wala malaami ak yeddaange moo tax ma ne wa man képp ko aj al bi taami ci ñam wa alhimma itaja wal ji ak payma faxoo moom aljaamiul ma mooy aji boole ngañ yi xas bu ko war na laa doy minhu ci moom maa loo xam ne yuqimu dana taxawal as sulbaa ndigg la taxaw yenn ngir dëgëral li koy tutiixa ngir nga topp rabba buur ba wax sar moytul mina sarri ci fuqle kulla daxarin ci bépp jamono fay ndoxoo naka moom mabda u kulli sharin mooy tàmbalikaay bépp ay yax ni dana jublu adamina adabi naka bokk na ci ay teggin xaddama sarrihi ñàkk foqle ila taami jëm ci ñam wa wa adama taxlixi ni ximmati ak ñàkk aj itri bii ci moom ñam wa fay na saalika naka loolu mën a dana ati bokk na ci ak suufe wa min mujibatil masima ak way waral ngañ yi kama ni ka ma ko waxe asahiru waykat ba ndeysaan way naka naka yow maxma tuuti saa yoo joxee rek bat naka sa biir suuloo càkkutéefam wa farjaka ak sa naa la nga am muntaha chammi day talub mboolem ngañ yi wala nga ne day talub ngañ yi aj maxa mboole seen sëriñ bi na ni bokk na ci teggin wala boog bokk na ci teggin ñàkk a foqale maanaam ñàkk a foqale ñàkk a bëgg leen rek maanaam sëñ bi mel ni caamen rek maanaam maanaam tubarkal la ñàkk a ci aw ñam bañ ci aj sa yiite maam bañ a bañ sa maam siite jëpp rek nga def ko ci ak maam maanaam xéwlu rek bañ ci ay siite jëpp ndax loolu bokk na ci ak suufe loolu dafa bokk ci ak suufe te day waral ay ngàññi rek am na ko wax ni biir moom ak pëy biir ak pëy ku leen jox li ñu laaj lépp da nga dajale ngañ yëpp saa bu fekkente ne bekk nii moom maanaam yow sa biir moom saa boo xefee rek fexewut loo lekk saa boo maree fexewut loo naan saa boo amee yitte ci seen pëy fexe koo dem defi daanaka yàgg dunduk bay may yéen yem ndax bay ma loolu mooy ak dundam moo ne képp ko def loolu moom daanaka yàgg dunduk bay ma yéen yam waaw nit xam ne def nga sa dund gépp mooy boo xiifee lekk soo maree bëgg nan boo amee moom yitey pay da dem faje ko yàgg bay may seen dund gi kiif kiif amul ngeen wutale ci ndax loolu mooy dunduk bay ma kon doomu adama dafa war a jël yiteem aj ko ci leneen loolu maanaam am yite ju kawe ci digganteem ak boroomam mu ne wat bit na nga téye wala mooy na nga takk rek yeddaka sab loxo laato kasaril bul baril abadan faw la woon fo bihaa ci moom loxo bi fay ne woon nag moom xaybun ayib la badaa juj fey na wala tanaawal bul yóotu abadan faw maa loo xam ni lam yaxus làqul faydan njariñ bihaa ci moom loxo boobu tafus kon da texe ba taqribin ci ak jegeel yax ni dana jublu adamina adabi naka bokk na ci ay teggin dàttal yaddi mooy téye loxo dàttal yaddi téye loxo wa tarkat takashiri xabashi ak bàyyi baril fo bi ci moom loxo bi wa tarkat naawli wala nga ne wa tarkat naawli ma ak bàyyi jottali ko loo xam ne daa faidatan déet njariñ fii di nekk ci moom bi ci moom loxo boobu fay noxoon naka moom yoan bu def na ko ayibal xalaa shawil axlaami te waroomu xel yi waxaasaa lii mi ma bokk na ci la nga xam ni xamat matale na bii ci moom albalwa musiba ma Sëñ Tuubaa dafa wax ni bokk na ci teggin bañ a bari looy fo ci say loxo nga bañ a bari looy fo ci say loxo maam di fo ci ay bant ak di rëddantoog loolu lépp bokk ci ay teggin nit da yar sa bopp te mu ne bul bari looy fo ci say loxo ak di ci bañ a def lu amul njariñ ndax musiba da ciy juddoo loolu yaakaar naa kenn ko nekk xam na ne tawat jii ñëw rek bu ñu ci amee am njàngat rek xam ne lu yenu maanaa la. ba tax ma in samita ndéem dégg nga. man koo xam ne yàkkun dana nekk ak bara di gën a mage mel ko ci yow yu aawilu muy sakko sama nag jamono watara ajo wala aajo kan yoroom nekk muy sakko mursalan ku mu yónni li aaja ngir aajo wala jëm ci aajo faqdi fajal loxo ñeel ko lillaahi ngir yàlla subhaanahu wa taala tilkal xaaja joojee aajo wala yaramu bu mu sàkku min ko ci yow liyaadan dara arimu kenn ilaa faxal taxoo ndare danga ko ko defal tukkuramu def reetaral la bi saaka ca loolee wala taxul nag bul wax li ahdin ñeel kenn kasabta kàcc nga bul wax kenn ne ko fen nga wala tax bul wax kasabta fen nga aw xulta wala wax nga aw xulta xayri xaq wala wax nga lu dëgg aw axtaxta wala nga ne ko juum nga aw xayriha wala yu dul ñoom min kulli shay'in ci lépp lëf yusqitu loolu dana merloo walaw kaana ak donte nekk na sàbb yeen diggoone fa xaw moom xalatu ak njuumte la wayn takallama bu fekkee dafa wax maa la nga xam ne lam tax la mi xamoo ko fa saddiqu na nga ko dëggal fii ci moom takun kon da nga nekk saakaramin di boroomu baax wala nga ne saakaramin di boroomu tedd faxul waxal laxoo ñeel ko lastu déet man kas man man kas man kasaa ni nii kat man kasaa ni ki nii aw kuntu wala nekkoon naa kat moxtaxidan di aje fas lii aw ina nii wala kat naka man jaaxiltu réere woon naa ko mooy xamee ma ko woon nii rek way na lu nuroog lii min xibaaratin ci ay waxin tasur yooyu danañu bégloo mustaxsinan yooyu dañu rafetal laatu seex nag duñu ñaawal wala bul wala bul ñaawal kenn wala tadur te duñu lor wala bu lor kenn waaw it nag na nga tàmmal lisaana saw làmmiñ xawdal xayri wax ji yeewu saw làmmiñ nanga ko tàmmal wax ji yeewu tafus kon danga nga texe bii ci moom wattu ko fa te def na fegal la ku la dayrin ci wépp lor li xawli shaydi la wara ngir waxi sangu mbindeef yi man kaana ku nekk man ku nekk salla yàlla na dolli ko yàlla na dolli tëddi nga xale ci moom rabbuhu boromam idmaana ci ak saxal yuminu ndegam billaahi ci yàlla subhanahu wa taala wal yawmi ak bis ba al axiri bay aji mujj fal yàqul waxal xeer aw yi aw yu aw wala nga noppi mu ne yax nii dana jublu aramina ada bi naka bokk na ci ay teggin alxasanati ye di way rafet an tuddi ma ngay saxal xada xaajati man faj aajo ka nga xam ne huwa moom akbaru moo gën a mag min ko ci yow isha samitaho ndéem dégg nga ko yatlu bu muy sàkku ka yatlu ba nekk muy sàkkoo man koo xam ni yursilu dana ko yónni fi aajatin ci aajo wa min xa bokk ci teggin ya an la an yutla ba mu bañ a sàkku min ko ci yow ahadun kenn say en dara illaa faxaltaxoo ndare bu def nga ko wala taqula ak ngay bañ a wax li ahadin ñeel kenn kasarta ne ko wax nga ne ko kàcc nga wala maanaam fen nga wala taqul wala xutta du caagee nag wax nga xëy na xàq lu dul dëgg wala kalimatin du caagee nag ab baat tusxituhoo boobu dana ko merloo wayen ak donte nekk na sax asxara di gën a ndawee min ko ci yow wayen xaala ndem wax na nag maa loo xam ne lam tax la mu xamoo ko fasadixu dëggal ko fii ci moom foo ko kon waxal lastu déet man kuntu may nekk axtaxidu de fas nangam kasaalika naka noone awla alamu wala duma xam kasaalika loolee way nax waxaasa ak lu nuroog loolu yi min xibaarati ci ay waxin alxasanati ya di way rafet wa awid na nga tàmmal lisaanaka saw lamiñ an ngay wax xayran aw yiw fa xaala wax na salla yàlla na doolu tedd nga allahu yàlla subhanahu wa taala kawe na xale ci moom wa sallama tamu dolli ko ak wóolu man kaana ku nekk yow yominu di gëm billaahi yàlla wal yow mi ak bis ba al axiri bay aji mujj mu bis penc fal yàqul na ngay wax xayran aw yiw aw li yasmut wala nga noppi waxaale wax na baax du sonra yi mooy lenn ci waykat yi ne awit tàmmalal lisaanaka saw làmmiñ xawlal xayri wax aw yiw toxsha kon def na cëral la walla xejal la xej xej nga xejal la bii ci moom indi lisaana naka làmmiñ yaxtaadu dana baaxoo li ma awata ñeel la nga ko tàmbal fi kulli ci lépp lëf taxaata dana yóotu maa la nga xam ni sananta yoonal nga ko loxo ñeel ko fil xeyri ci aw yiw wa sharra ak wu ay fansur xoolal kay ba tasdaadu naka ngay dolli ko ma ñëw ak yéen leeral leen maanaam moom insha allahu taala sëriñ bi dafa wax ni bokk na ci ay teggin ngay fajal soxla képp ku la mag maanaam bu fekkente ne Macky Sall da ngaa nekk ak sëñ góor mu taxaw fii ci barab am yitte onse ba mu nekk këram am yitte onse te mu wóor kii moo la mag ay at ah man de tey jii am naa yitte joo xam ne sama place wax dëgg yàlla bàyyi naa fa ñaari carte la yoo xam ne dama ko soxla soxla soxla foo na ko yow nga dëkk te xam ne kii ma la mag te amoo itte ju irxente maanaam demal nga fay la ko yàlla ak yàlla moo fay saa ba dëggee nit koo xam ne rek féete na la ak mag rek jàmbat ku ma yónni loolu lii ay teggin rek mooy yow nga jóg yow insha allahu taala ne ko indi ma dem doxalal ko loolu dana tax sax ak wegante gu rëy ci seen diggante yéen ñaar te ab yool dong nga ciy jëlee war tax bu fekkee dégg nga ko la ba muy sàkk ku mu ko fajal ko déggee rek wala nga gis ko bokk na ci itam képp ku ku sàkku ci yow loo man nga defal ko ko tey bañ a wax kenn nag fen nga wala wax nga ko lu dul dëgg wala baat yoo xam ni da koy merloo donte sax yow yaa ko mag bu fekkee da ngaa toog ci ab gis ay nit di wax wala ay nit di wax nit ki loo ko mag mag mag mag mag mag maanaam loo ko féete féete collectif war a wax rek nga ne ko waxoo eh waxoo dëgg eh da ngay kàcc ngeen baa ma ci waxin wi eh da ngaa juum suñu ci waa dañ ne loolu bokkul ci ay teggin donte sax yow yaa ko mag wala kaana sab yéen fa wa xalatu donte yow yaa ko féete sax ak mag boo ko waxee loolu rek njuumte lu rëy la nit ki war a ko waxoo dëgg war a ko wax ne ko fen nga war a ko wax ne ko da ngaa juum loolu bokkul ci ay teggin bu fekkente ne dafa wax loo xam ne nii dëppoowut ak yow li nga yaakaar ne ko man day wax dëgg yàlla jàppe woon naa ne kat nangam la woon wala kat nii laa ko fase woon waaye jekk-jekk di wax ne la ko ay waaye say waxoo dëgg loolu sax lekk-lekk nga def ko nit koo xamante ne békk di na cee dox seen diggante ak ñaar te su boobaa yow yaa fexe sàmmonte ak ay teggin ndax lu ko ëpp te loolu mën naa andi donte daa sax gone boo waxee loo xamul daal da koy dëggal ne ko man de xamewuma ko woon noonu wala nii laa ko yaakaare woon wala kàddu yu mel noonu yu rafet la wax dëgg yàlla waxtu mu ne del fexe nag tàmmal soo làmmiñ lu yiw ndax yonte bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam nee na ku gëm yàlla subhanahu tabaraka wa taala ak bis pénc ba nay wax lu yiw wala mu noppi loolu mooy awet lisaana xayru li xayri li may awata yaxtaadu sëñ bi làmmiñ nañ ciy wax lu yiw waaye léeg-léeg nga ci mbedd mi eh, damay nangam loolu du rafetul ay teggin sa làmmiñ wii lañ ci tàmm tudd tàmm ko wax foo toll ci àdduna mu la yootu maanaam bu ko génn sa du ko tey bu fekkente nga tàmm wax ay saaga rek foo toll di saaga barke Cheikhul Khadim bu salaam yi di gën saaga sax doo xam sa fan la jaar parce que da nga tàmm tàmm laago la moo tax tàmm lu am njariñ mbaa tàmm di wax lu am njariñ dafa am solo ba dama wax ni ba tax mu yonte bi wax ni képp ku gëm yàlla nga bis pénc sa làmmiñ na nga ko tàmmul wax ji yiw wala nga noppi kon mbokk yi góor góorgóoru ci tàmmul suñu làmmiñ wax ji yiw te bàyyi saaga ak wax jox xam amul benn njariñ ak waxi larax loolu baaxul mu ne su fekkente ne bi ko nit da ngaa toog ci ni tamit sama dafa dogal ñu féetal ak mag yow nga gën faa féete ak doo lépp loo xam ne nag jëm na jege ci bagage maa loo xam seen i jumtuwaay la ñu bokkoon ko liggéeyal ngir yaay yàlla bu leen ci xaar sa làmmiñ tàmmal ko wax ak yiw ndax làmmiñ loo ko tàmmal loolu rek lay tàmm moo xam lu baax la wala ay neen la saa su ne nag da ngay da koy gën a mën ndax làmmiñ dafa nekk loo xamante ne bi ki nii wax dëgg yàlla sa borom dañu ko bindaale lépp loo xamante ne nii lu yàq la moo ko yàq lépp loo xam ne lu baax la moom moo ko defar mbokk yi dafa mel ni xam naa ni li ñu amoon ci waxtu sëñ góora mu mel ni xam naa insha allahu taala mat na euh, di ñaan sa borom tabuñu kattan lu ñu ay xéewal yu yaatu waa Touba TV moom sa borom def fi kër gi muy nekk di san kër goo xam ni kër la goo xam ne yàlla këru taalibe di ñaan suñ góora sa borom tabu la kattan ba yéene yi nga am yépp sa borom àggale ko ci barke Cheikhul Khadim di profité rek di wax ni incha allahu taala waxoon nañ leen yaakaar naa bi ñu doog a tàmbalee ci sunu njëlbeen ak émission xam naa ne leen wutal benn numéro boo xam ne nañu ko affiché ci écran bi boo comme ay laaj mën nga ko def ci commentaire yi bu ko defee suñu góor dañu ko jotal ci wàllu diine beneen bi ki toppit mooy képp koo xamante ne bi que nii am nga tamit bëgg a woote directement ci kii émission bi di nga mën a woote direct incha allahu taala di wax rek incha allahu taala ni Euh, mbir la moo xam ne ñu ngi koy waajal ay bind yoo xam bind yu am solo la ngeen mbokk taalibe ci seen wàllu diine fii moom ku nekk xam ne jumtuwaay yi tey alxuraan moo ñu ne na ginnaaw dañuy tanante la rek koo xamante ne man su ma xamul naa dem laaj ñi xam yéen ñi xamul it képp ku ne dina tax yaakaar naa njuumte dina néew rek suñu biir di wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dinañ jox dox daje insha allahu taala axus biir ñëw ak beneen numéro insha allah jërë ngeen jëf wa